ñun nag bëgg nañ bokk groupement ndax groupement bi bëri na trop trop ci dëkk bi waaye am na ci ñoo xam ne it dañ lay nax dañ lay wax ba nga dugg ci biir ba pare ñu rocceeku dem feneen ñun nag nax boobu nag moom lañ bañ fi mu ne nii dañoo bëgg ku ñu jàppale te yàlla tax ñun ay jigéen lañ sësuñu ci kenn yaakaaruñu kenn ku dul yàlla ak suñu borom kër ku ñu jàppale nag te yàlla tax ñu jàppale la. ku ñu jàppale wut ñu téye suñ bopp ñun liñ liñ moom dafa woy deeng ndax ñun ay jigéen lañ nangoon nañoo liggéey nangoon nañoo daan doole def ci suñ bopp def ci suñ borom kër ñëwuñu suñ benn moroom jigéen nag benn moroom jigéen ñëwuñu leen dimbale leen ñu te yàlla tax te bàyyi nax yi nax yi ci boppam moom lañ bañ ak njuuñ njaaj dëgg mooy njëkk mooy mujj dëgg mooy njëkk mooy mujj te kenn ku ne boo dee sa loxom day joor bii ngay laloo da ngay def te yàlla tax kuy def te yàlla tax nag doo sonn doo tàyyi tey dimbale jigéen ñi jigéen ñi sasuñu kenn amuñu ndey amuñu baay yaakaaruñ kenn ku dul ak seen borom kër ku ñu jàppale ñu jàppale leen ku ñu jàppale wu nañu baleen ñun daal ci loolu lañ ne bu ngeen ñu jàppale wut ñu baraasle suñuy loxo téye bopp ndax kenn moomuñu kenn juruñu kenn jënduñu kenn juruñu kenn jënduñu da ngeen ñuy defal ñu di leen defal loxoy hmm. kajoor day weesalante hmm. koo defalut it bu yàggee mu baraas le loxoom koo defal nag suba ba ca ngoon man bi man ami géede man ko am jom laa ku ma defal de bu soobee sëñ Fallou Mbacke dinaa la defal ba xam ne ñëpp xam ne defal naa la ku ma defal ma téye saa bopp day fekk yéen ñi ñëw nga jàppale ngeen ñu am ngeen doole ci ñun bu ngeen amee doole ci ñun ngeen jàppale ñu te yàlla rek tax keneen mënuñoo fànq. te daal li waraloon suñu yi mooy kon ñun dañu bokk ci parti muy RDL yeesal bu président Modou Diagne Fada ñu doon mastifier parti bi tamit di seet si militants yi di waxtaan ak ñoom te yàlla dogal nag ñu tàmbalee ko fii ci Daaru Salaam ndax man ginaaw Daaru Salaam laa yaakaar lépp lu may def Daaru Salaam laa koy tàmbale bi ma ñëwee seet sama jigéen bi faatu Ba mu andi mu fii si ñoom aram ak mbootaay gi nekk fii pour ñu waxtaan ak ñoom bëgg noo xam ne ñoom tamit moom lañ ñuy jàppale ba parti bi mën a jëm kanam su ko defee ñun tamit li nga moom la ñu waxtaanee ak ñoom fii lépp loo xam ne mën na leen ko jàppale mu ci àll ay financement ay ndimbal liggéey ak lépp loo xam ne ak lépp loo xam ne day jóge ci parti bi ñun tamit ñu jàppale leen waaw jàppalante bi moom dëgg dëgg dëgg mooy ñoom li nga xam ne ñoom lañ lay jàppale ñun tey ñu ngi jaay ay carte bëgg am ay membre gis nga ko fii saa ngi nii ñu yore ak carte yi xam ne léegi militant bu nekk yaa jëndal sa bopp carte parce que nit ki bu fekkente ne da dugg ci dara xam nga tey mën naa ñëw rek distribuer leen carte yi jox leen remplir dem ne samay militant lañ fekk duñ samay militant ñoom ñooy am seen gëm-gëmu bopp xam ne parti bi kat bëgg naa ci adhéré carte bi 200 lay jar ñu jëndal seen bopp carte ñu enregistré leen boole leen ci parti bi ñoom loolu lañ ñuy jàppale leneen nag ñun li nga xam ne moom moom lañ leen di jàppale mooy ay jigéen lañ dañoo toll ci liggéey comme nag ñoom ci lu dëggu lañ nekk da leen jàppal ci lu dëgg lu dëgg nag mooy lan mooy wutal leen ay financement yoo xam ne ñoom dañ ci mën a liggéey di leen jàppale tamit seenu njaboot ku ciy jàng wala dara ñu fexe ko jàppale fexe mu amee bourse ku ci ku ci am jafe-jafe jàng tamit ñu xool nuñ ko lijjantee koo xam ne jàng ba noppi war a liggéey tamit ñu fexe laa nuñ lay wutalee liggéey parce que loolu rek nga leen a jàppale ndax mënoo leen jàppale leneen du question que ne da yor ay millions di ko distribuer wala di ko joxe nit ñi tey boo yore ni million andi ko fii kër gi day fees dell ku nekk jël dem mel taxul ñu gëm la nekk a doon député bëgg ngeen jàppale ma wala dara non non du loolu quoi ñun li ñu tax a jóg mooy nañ jaatal dañ koy continuer ni ñëwee fii tey la ñuy dem feneen ak feneen ay points yu bëri la xëy na tey dañ ko tàmbalee fii mais am na ñeneen points yoo xam ne war nañ faa dem li ñu ci gën a kii sax mooy koor gi ak nit ñi nga xam ne bëccëg gi léeg-léeg ñi dañuy sonn duñ mën a dajaloo ak yëpp te ñii dañ leen ko dig diggati leen ko diggati leen ko chaque fois ñu koy fomm moo tax tey ñu ne moom lu métti métti rek dañuy ñëw bu ñu fa dee fekk sax benn nit bu dëggu moo ñu gënal fekk fi téeméeri nit yu dëgguwul te man aussi loolu laa bëgg dafay bëggoon bu ma set sa ay nit li nekk ci ñoom ñu wax ma ko ñu bañ a naxante parce que politique bi léegi ñu ci bëri sawaratuñ ci ndax da ngay dégg ñu ne dañ ñoo naxa naxa nax dañ ñoo naxa ñun nag lool la ñuy bañ duñ dig kenn tam luñ mënul te jii ku ma ci jàkkaarlool nga bëgg nga wax ma loo xam ne mënu ko loolu naa la wax dëgg soxna si loolu mënu ma ko bu dee lu moo mën a tam dama koy def fàtte boobu mi xam na ma yàgg nañoo ànd te gis na ma ci lu bëri ba tax loolu moom moo tax mu sawar andi ma ci ñii pour ma waxtaan ak ñoom pour ñu fexe nuñ ma jàppale jàppale tam suñu parti man sama cible bëri na mais xamuñu parti bi ak ni muy doxee ñoom duñ jël carte yi comme ni ñeneen ñi def rek xëy yan la ay carte kasa kasa dañ lay jox bloc de cent nga jaay soo jaayee cent yi ba pare ba mu jeex nga ñëwaat laajaat ñu joxaat la. carte yi tey fii laa jëkk ñëw fii laa démarré comme ni ma ko waxee woon man Daaru Salaam day sama yaakaari tey ak ëllëg bëgg lu may def tam tàmbalee ko Daaru Salaam ndax yàlla may ñu ci ndam feneen ak feneen ak feneen fu bëri ñu ngi ma doon woo ñu ngi ma doon xaar mais damaa taamu Daaru Salaam tàmbalee fi ndax ginnaaw man Daaru se xam ne Moustapha mooy sabab sëriñ si Abdou Khadir mii di ilimaan di tey ci moom laa yeeslu kon lu may def daaru salaam laa koy tàmbule nii nag boo gisee ma taamu leen taamu daaru salaam bëgg ñoom tamit li ma am akus néew ak lu mu mënti doon ma koy indi daaru salaam ndax man daaru salaam rek laay liggéeyal xëy na nag boo waxee loolu dana am ñeneen ñoo xam ne peut-être danañ mer na ndax daaru mais nag nit ki tamit sa wew tànk la bay sa wew tànk la ni ma ñii it fii laa jëkk a jëw sama yi nga xam ne ñoom laa dëkkal sax tàmbalee gu ci ñoom tey fii laa démarré sama njaayum carte mi ak euh, yi may def ak visite ak lépp tey Daaru Salaam laa ko tàmbale bëgg dem ñu ñaan ci mu am ci waaw